saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Gaston Mbengue ak tontu ba mu tontu jëmale ko ci tafaatina Gris Bordeaux super kalaaf ba muy waaj moom Gaston Mbengue ku ci avancé wut moom avancé na ca le Don King de l'arène pare na taxaw na temm ngir liggéey projem jaarale ko yoonte mbër mu pare pare na pour ak yow démb ci sunu làmb la xam le diggante Sa Thiès ak Gris Bordeaux moom Gaston Mbengue soxla na ko rax ca dolli ne diggante tafaatin ak rëg-rëg soxla na ko waaye démb la ne soxla wu ñu ma Sa Thiès magu Sa Thiès Balla Gaye 2 Mbengue génnaane la mu teg di plan A bu doxut it am na plan B mbër yi mu limoon ku fi nangu wut a bëree fi na la naan ñukk ni yàq bu na xari dem wuti leneen plan B bu gaston bi mu am Eumeu moo ko ko gënal Eumeu gannaaw ba mu perte ron bi ba léegi bëgg naa wonewaat boppam delluwaat fa mu nekkoon bile combat bokk na ci plan B wu gaston noté na ko bu yàgg gannaaw Gris Bordeaux soxla wut Sa Thiès moom Gaston day jël Sa jox ko Yékini Senior Yékini Senior ak Sa loolu combat bu neex lay doon jar lay doon bi le bokk na ci plan B wu Gaston na ko bu yàgg rax ca dooli moom Gaston ne ci sama plan A tafaatin bu nanguwut a jël rëg-rëg dama koy écarté tafaatin bu bëggee rëg-rëg ma jox ko avance bu ko bëggul ma bàyyi ko fi xooli ñeneen diggante Gris Bordeaux ak Sa ndax bu Gris bëggul dañ koy écarté kenn xamagul en waa Fass neexul amateur yi soxla ko combat bu logique bi combat bu am fondement sportif bi mooy diggante Balla Gaye ak Gris bi la diggante diggante bu ñu war a leeral la fa mu jeexale mooy Gris Bordeaux Balla la soxla wala beneen ténor bu dee Sa ak Sa rek doy na sëkk Gaston Mbengue ne leen en tout cas man bu plan A boobee doxul man am naa sama plan B xam naa fi may jaar xam naa ni ma koy tëggee te dina neex nit ñi sama projet bi bëgg bëre bëre bëggut magam la soxla journal ba xam le ne rëg ak Sa Thiès daal dafa mel ni seen yaakaar baa ngay bëgg a tas ka yaakaaram di doolee ko ba muy limi adversaire am foofee ca ko xaar mu làmb lim naa samay adversaire maa ngi préparé te nañ ma xaar léegi ma yegsi fa ñuy jeexale mooy ca Modou Lo roi des arènes ak ba le journal ba xamle mooy le 28 la ko ne coppet ci Eumeu Sène boobee ba léegi mu nga mu denc bërewu ca joxewu ko moom Modou la tëwoon Eumeu Sène coronavirus bi tax na mu réussir ko Eumeu Sène dafa jël couronne bi ci at bi perte ko ci at mi Modou jël ko ci at mi am coronavirus ne ko du fi amee mu lem couronne ba mu jekk ranger di ko fomp di xaar beneen saison beneen laaj ba ñu samp a fës